2024 El Hadj Assane dafa wax lu am solo il a souligné russe mais souligné aussi <laughs> d' autres contre exemples. oui contre exemple RDC loolu tamit nañ ko bàyyi xel parce que bu waxee Mauritanie moom contre exemple la. Mhm. parce que Aziz dafa ne woon waa ji joxal. après mu ñëwaat waa ji ñëw tëj ko. waaw tëj ko jàpp ko tëj ko. gis yeneen cas yoo xamante ne. même ici au Sénégal président Senghor bi muy dem dafa tegoon président Diouf. oui ci ay conditions. oui mais dañoo mujj jubawuñu mais ñu saa yu dafa dem rek Diouf ate commencé la désingularisation politique tegee na la ku mënti ñëw ku mënti ñëw à part les choix de son cœur mhm. yi nga xamante ne jàpp na ne nag amuñu dayog gaje donc ce sont les choix qui s'imposent à lui mhm. quel que soit Alpha kii ñëw après 2024 il va faire du démaquillage mhm. pour ne pas dire désengorisation mais démaquisation démaquillage laa koy tuddee donc du topp li ko waa ji doon digal parce que président de la république on est dans un régime hyper présidentiel tant que président euh, moom de la république dépouillé nga ko de ses prérogatives de ses pouvoirs yooyu yaa yor décret bi di signé kenn mënul toll fële di la conditionné alors président Macky man li tax ma ja yàgg jàpp ne du dem malgré euh, ñoom ministre Birame Faye li ñu doon def yëpp mais parce que loolu dafa am fu mu koy yóbbu mm-hmm. dafa dem Tamba toj ko ñëw Thiès toj ko dem Sédhiou fu nekk rue marée humaine naan ko yow yaay suñu candidat mm-hmm. mu ñëw maire yi des centaines de maires taxaw ne ko yow yaay sunu candidat voilà bu demoon génnaat ci mbedd mi mbedd mi fees dell ne ko yow yaay sunu candidat mu ñëw ci contexte boo xamante ne le Sénégal sur le plan sécuritaire presque était en lambeaux le nord du Mali était envoyé par des djihadistes Guinée di tàkk fële cest à ñu entouré wu ceinture de feu mu ñëw relever le défi de la stabilité sécuritaire mm-hmm. engagé dès 2013 programme d'équité territoriale l'acte 3 de la décentralisation fin de la discrimination ñëpp nekk ay communes mu accompagner leen avec des programmes comme PUDC programme d'urgence de développement communautaire mhm. PACASEN mhm. PUMA pour les axes frontalières Promoville nga xamante ne l'essentiel des activités agricoles donc euh, accélérer la cadence agricole euh, PRACAS mhm. ak euh, PRODAC boole ci loolu noonu yëpp nag déclenché ay infrastructures yoo xamante ne c'est révolutionnaire la Transgambienne Pont Marsassoum Foundiougne dans le Fouta euh, def loo xamante ne ci wàllum sécurité jàpp naa ne Sénégal am na keneen ku ko doon yor mënoon na am problème surtout au niveau du sud mu imposer candidat wam Gambie imposer candidat wam Guinée-Bissau mhm. stabiliser la Casamance teg pont ci diggante bi coow li na jeex mhm. kooku noonu euh, ci ci ci ci biir euh, programme am nga gis ci li mu def ci ay kilomètres d'autoroute et de route ak putsch rural pratiquement bilan matériel am dafa euh, daan ñi nga xamante ne ñoo ko jiitu woon yëpp. Mhm. ba pare ñëpp ne ko bokkal mu ne maa bañ kooku bu laajtee secrétaire général Nations Unies. Mhm. qui un système de rotation. Mhm. ces pairs africains ñëpp doon suivre discours am bi yaa ngi ko wax léegi discours bi àdduna bi yëpp a doon suivre eh bi mu daanelee nga gis tweet ku nekk di dem eh ñëpp di féliciter eh donc leadership international bi nga xamante ne réussir na ko et que ça commencé à être par des événements yi nga xamante ne moom moo fi xew récemment mm-hmm. qui n'ont pas honoré le Sénégal aussi mm-hmm. donc yooyu noonu yëpp mu dem Russie am taxawaay donc delloowaat le rayonnement diplomatique du Sénégal mm-hmm. jàpp naa ne kenn gënu ko am profil actuellement d'être la premier secrétaire général des Nations Unies loolu kenn mënu ko koo bañal